Rewmi 24 TV cantan ngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci site internet bi di Rewmi 24 TV li fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doore ki nga xamante ne moom mooy Thierno Diagne nekk maire bu Saint nekk maire bu Sindian daal dinañ koy teg loxo niki tey jii daal di koy defeere foofa ca parquet bu Mbour ñun mënu nag mu ngi tukkee rek ci commandant brigade gendarmerie bu Popenguine moom ci jëmi boppam rek jot nañ ko transféré fi nga xamante ne moom mooy ca boobule tribunal jamono ji a xamaguñu rek lan moo tax ñu daal di koy yóbbu ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar xibaar yi nga xamante ne suñu nattango immédiat ñoom ñoo ko daal di fësal ne nañ maire bu Sindian di woyu turu Thierno Diane daal dinañ koy arrêté ba defeere ko nag foofa ca diwaan bu parquet bu Mbour ni tey ci àllarba ji mu nekk nag mbir yi nga xamante rek jamono ji li waral nag ñu daal koy eh, jàpp xamaguñu ko waaye daal nen daal yëf dafa laaleeg enquête bi nga xamante rek moom moo tukkee ci office national de lutte contre la fraude et la corruption yi nga ay nit ginnaaw rek bi ñu doon def ak càmbar eh, ci li ñeel réduction des comptes nag niki 10 janvier 2017 mbir mu nu benn nag dañoo gis na rek ab luubal ak njuuj njaaj ak sàcc gu metti rek ak lewal koppar yu lewut daal dina fay tukkee mu mel ni rek lu toll ci 2 milliards de francs CFA moom ci jëmi boppam rek jot na ko jaarale ci coopérative Abidjan ñu dëkkee ci diwaan bu agent bu Sonatel ak ñu dëkkee ci diwaan bu Sindian mbir mu nu wel nag moo waral rek ñu daal di koy toog loxo mu nekk njort yoo xamante ne rek moom la ñu daal di njort ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne rek suñu nattangooy Dakar mobilité daal dinañ koy yëkkati ne nag société bi nga xamante ne rek moom mooy yor exploitation bu BRT bi ci diirub une semaine nag lu toll ci deux cent mille tickets rek la ñu daal di jaay mu nekk ticket yoo xamante ne ay ticket de voyage la ginnaaw bu ñu ko enregistré nag chiffre yooyu jot na réalisé lu toll ci quarante bus yi nga xamante ne rek ñu nga nekk ca parc cent vingt et un bus mu nekk nag xéewal yoo xamante ne rek daal di nañu koy gis du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat. ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teew lu bi bu leen fàttee abone bés cloche de notification ngir dara bañ leen a ngir dara bañ leen a raw